fii ci Thiaroye sur Mer nag ñii di nappkat yi jamono jile seenub liggéey lépp dafa daal taxaw li ko waral géej gi amatul wenn jën ba tax na sax ñuy duut baraamu tuuma nguurug senegal bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu nguurug Sénégal dafa yëkkati ay licence de pêche daal di koy jagleel bateau yi bàyyi ko fële ca biti réew ñuy ñëw nag di napp suñu géej loole nekk loo xamante ni dañu koy naqarlu jafe-jafe yi moom bari na bari na lool foo ko natt weesu naka parce que géej gi ngay gis ni géej gi bato yi ñoo bari ci géej gi accord de pêche yi état bi di signé moo bari ci géej gi ba nga xam ne géej gi aw jën mënatu fee am géej gi aw jën mënatu fee am gis nga ñun ñii nii nii heure bi daan nañu fekk ñuy dem géej bu yàgga ñi ay waa Fass lan ñun ba ba mësaa toog ak suñuy mbaal dañuy toog di déglu Fass Ndar bu dugalee jën rek ñu préparé parce que après dinañ xam ci temps de jour jën buñ tëmbee dinañ dajeek moom léegi amatul de xoolal ñii ñëpp léegi waa Fass ñi dañuy ñëw toogandoo ak ñun léegi ñuy xaar loo xamante ni duñ duñ ko gis. waaw ñun suñu jafe-jafe si géej gi mooy dañu dëkkee sur le grande côte fas booy mi ngi bokk sur le grande côte di géej goo xam ni géej gu mas bari jën la ñun mosuñu jéggaani fenn mosuñu jéggaani fen mais léegi ñoo ngi bàyyi suñu dëkk jóge fa di ñëw si dëkk yi di fi liggéey si. ñun ñoo ngi nekk fi mu toll nii Caaroy barke Demba Ndiaye la ñu jóge Mbuur jafe-jafe fa am ku ne xam na ko parce que géej gi fi mu toll nii Sénégal li fi nekk si gaal rek li fi nekk si gaal yoo xam ne am nañu permis de pêche soo xoolee yeneen yu toll ni moom ñu ngi fi yoo xam ne amuñu permis de pêche parce que état nee na mënatul jox benn numéro benn gaal parce que géej gi dafa saturé waa léegi nan la géej gi di saturé ba pare état di ñëw di signer ay contrat de bateau ti moom nee na géej gi dafa saturé non signé nañu ay bateau. parce que ñoom li mu def parce que barke Demba Ndiaye bi ñuy posé le pierre à Saint-Louis pour dragage euh, bël boobu mais ñoo ngi def ay ñoo ngi def signature keroog président fekk ko fa. état du ko nangu mais mi ngi signé ay contrat de bateau kon bateau yi nekk si biir géej gi ay bateau lan lañu ñun ñoo ngi gis bateau yi si biir géej ñoo ngi fees dell si biir géej kon yooyu bateau fan la ñu jóge dëkkuñu Sénégal. waa jafe-jafe yi nii dund si géej gi. foo ko natt weesu na ka ak tar goo xam ne te lépp lépp lépp kenn teguñu ko lu dul état Sénégal ndax li ñu am muy jéggi war dundee waru ko jël dikka ko jaay tubaab yi war na ka bàyyeeg doomi Sénégal yi ñu am lu ñu dundee parce que état utalul fii kenn benn xëy lépp koo xam ne muy mool ak kudul mool instant yi jéggi li daanaka moo yor Sénégal. suñu jafe si géej gi daf nu daf ñu def kaawa ndax ñun état Sénégal dafa ñu daf ñu ñoo nit di mool noobul la mool dafa war nekk noobul ndax doo xoolee du fekkee Sénégal am na 100 pour cent mool yi moom 99 moo koy indi mais du nguur gi jëlee géej gi jaay ko. ah ñun jeunesse Sénégal ñun fu ñu jëm te ndaw mooy dox réew mi te géej gi bokk na si luy doxal réew mi jën day jóge biir géej di wàcce si nga jaay ko ba tey léegi ba tey léegi danañ jóge biir géej ñun 2016 2016 2015 Fass daaw nu ko génn Fass lañ dëkk fas booy daaw nu ko génn ndax bare jën booba boo da barewul amul sax laa wax ñuy nekk si géej gi di raayante di am jën nangu nu génn di tukki ay caaray mbuur te ngeen ñu nuy sanat waa ci phénomène bi nag phénomène bi lu ko waral dara waral lu ko lu dul ñoom ñoo ko créé c'est l'état di Sénégal ki a créé ce phénomène là vous allez me dire comment l'état du Sénégal a créé ce phénomène là boo jëlee li nga xamante ne pêcheurs yi dañ ko doon suturloo muy jën wi nga jox ko ay étrangers maanaam ñoom daal dañoo organiser seen seen pillage systématique bien organisé yaakaar nañ ñun bon ay naxandoom yoo xamante ne da ngay ñëw rek nax leen comme ça tuur leen dëndëm dem sa yoon lañu quoi mais on est loin de là on est en 2020 am na yenn dimension yoo xamante ne sax tey jii boo ko waxee sax dañ naan kii est-ce que mool la te fekk man d'origine man man damay dem géej d'origine mool laa def naa ci géej plus de 34 ans def naa ko ci géej phénomène bi bon bii moom moo gën a yées dund nañ ko jamonoy Ablaye Wade mais bii moom moo gën a yées Alioune Ndoye am na lenn loo xamante ne en tant que doomu Lebu daf ko war a bañ bu ñu la joxee poste ministre ñu am yaakaar daan ne kii ka doomu Lebu la xëy na bu ñëwee ci secteur bi secteur bi di gën a baax nga ñëw sur la table fekk fa ay loo xamante ne day toroxal sa askan alalu àdduna jarul sax nga koy jël musuma gis lébu bu gën a yées ci lébu yi bu dul lébu bi nga xamante ne da jël li askan yu war a dundee nga dem jox ko ay jàmbur yoo xamante ne bokku leen ay xeet bokku leen xeet loolu dafa nekk loo xamante ne trahison la ci peuple bi li ñuy sàkku nag mooy nguruk Sénégal daal di dakkal li ni mel ngir ñu mën a dundal seenu njaboot lu ko mooy daañu jël gaal yi dem biti réew. gars yi nañ ñu may batma rek bàyyi ñu xoolal bu mën la defal géej gi moom bee boo ñu xam ne gis nga géej gii kenn mën la téye kenn buñ ci waxul waaye yow taal bu baax jot rek ñu solaat essence rek songa saw bi nga xam ne boo tourné daanaka penku lay doon ci yow. gis nga su bëggee xeex clandestine mën na ko xeex si xeex bu yomba nan la koy xeexe mooy ndawam yi mu fexe ba nga xam ni la leen tax di jóg ba ñu dem Espagne da fa wuti mu am ci réewam mi benn ñu am ay jën yoo xam ne daan fi mën di toog di fi liggéeyee ñu am suuf soo xam ne daan fi man toog di bay suñu élèves yi nga xam ne dañuy jàng bu ñu jàngee ba am si i diplôme ñu am fu ñu mën a toog liggéey. te état tant que mu ngi jaay géej gi saa mool yi chaque jour ñu ngi mbëkki man mii dugg naa si gaale ñetti yoon. ñetti yoon sama dernier mbëkki dugg naa ci gaal dugg naa ci sama dernier mbëkki gaal goo xam ne cent cinq personnes la yeboon vingt cinq personnes ñoo ci dundat boo sàggantuwul bu may dellu man maak sama njaboot ak samay du ma fi bàyyi kenn parce que jéggi instant nii ñun ñun dee nan da di dox. mais tey say du demee bay tukki ndax dañuy daan suñu doole di génn campagne yi suñu yaay suñu bàyyi ñoo tax ndax dem na ne mënatuñu leen xool. mais ma ñun mënatuñu xool suñu yaay siggi xool suñu baay dama leen war teral ci li leen am dama leen war terale lii mais état senegal lu jëlee géej gi jaay ko ay boto gars yi mbëkki man dama leen dama leen ñee dama leen di yokk encourage bu kenn ragal ko dem ñëwaat bu ragal demaatal ndax nga tax géej gi leen war suturoo duñ ko jaayee léegi sa àll ñuy jëliwaat andi ko président yërëmal say askan yërëmal askan wi lillahi wa rasuli ñun lii ñu am mais lii bu fekkente ne da nga ko jël jox ko ay jàmbur fan la ñu jëm Macky ngir yàlla dañ lay ñaan dañ lay ñaan ñun lii rek mooy sunu sax ci la ñuy dundal suñu njaboot dañ lay ñaan lillaahi wa rasulu sa accord de pêche yi ngay signé nga bàyyi ko ñun ñi ngi jooy nga jëliwaat waay union européen daal di tegal ñu ko daal di daal teg leen ci diggante bi maanaam da nga andi benn concurrence boo xamante ne entre les asiatiques et les chinois ñun melentaan lañ ci. accord de pêche yi mu arrêté ka ba tey ñu wàññi leen gij li fi nekk ci xeeti chinois kenn xamul nu mu toll kenn xamul chinois yi léegi ñu ëpp ñu fi barki Rasulullah yi coggal ñoo fi ne ak coggal ak ñoo fi ne. nguur gi anu sàkk ba tey mu jaay géej gi ngir yàlla du fekkee mënoon na si jàppale mu téeke ngir yàlla ñun mu bàyyikaat gaal ndax lii moom la am moom la ñuy dundee duñ ko jaayee ñun lu ñuy am ëllëg noonu ñu ngi war am njaboot war am jabar doom anamu. fi leen ko war fii leen ko yaakaare fii